maam alaaji saalum maam alaaji maas ba ñoo fonda maa ndaw fonda maa bu rëy cheikh alaaji baaboy xalifatu baay bi ci biir ndukku maan man biram em na ma daarul muhibbiina dugul maa ko man min ka moo leen njëkkaa wëy la baa alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi sant yàlla bu baax di nuyu waa daarul muhibbiina TV di leen wax ni bis bi bisab sant yàlla la bisab yokkute la ci saahir ak ci baatin ku xam ne xalifa seyxul islaam alaaji Ibrahima Niass nga xam ne duhut ne Sénégal rek ñëw ko moom du Afrique rek waaye da entier bi yëpp ñoo ko bokk muy seeti ku nekk tey mu jox ñu bis nañu ñun lay seet si loolu mbégte yokku yokkute la duut guléet mu door a ñëw njukkumaan waaye nag guléet mu dóor a fii ci Santhie Gual Ngoné tey mu nekk yokkute goo xamante ne nii dayo ba ñun xamuñ ko ñu ngi koy ñaanal yàlla mu yegsi si si jàmm fekk ñu si jàmm di la wax ne nag ndukkumaan yëpp teew nañ wala Sénégal yëpp teew si nañ ndax tante baa ngi ni gis nga nin mel fees na dell moom ñu koy tertu di ko xaar pour mu julli si fii saan ñu ngi xoo ñëpp ci góor ak jigéen mag ak ndaw salaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal mu ñu gis si annonce bi nga def si zikar bu am solo ñaari kaddu yoo ñu ciy may rek waa Daaru Muhibina ak Télé Ndoukoumane. waaw alhamdulilah dama wax ma ne dégloo ci leen ma jàmm la xalifa bàyyi Cheikh Mahi Niass xaadimul ummaay ganesi sañ ci gal ngoone ndaw lu rëy waaye Ahmado Ndo loolu kañ la yow 2023 bii la kat yow mul xamis ji ñëw ci ñun ci takku tàkkusaan ca alxames ma ne euh, bàyyi tàkkusaan yow mul xamis ca tàkkusaan la bàyyi wàccoon tey bañ a seen ñun tam yow mul xamis ci tàkkusaan baay da dañëw ci ñun kon benn salaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf jërëjëf jërëjëf mbokk ñi doon euh, setan am mbégte bu baax di leen jox rendez-vous ci yeneen itv fi ci sanci gal ngóone xam ne kenn ditu ko làcc ci adrat bi mu nekk dëkk bu mag ci biit pays bi jërëgeen jëf alhamdulilah taala wa barakatu maa ngi sant yàlla sama borom mi nga xam ne tey ñu jagleel kilifa gu yem ni euh, cheikh may di ku ñëpp yaakaar ci sénégal déplacé wu di ñëw di set si benn dongoom alhaji salum ndaw ci sa njigal ngone lool yépp bokk nekk ci commune kàccoon kon kilifa gu bu yem noonu nga xam ne ñoom jàpp bësi lañ fuñ jaar forcé am lu fa ruus bu tànnee commune kàccoot kooku ndam la ci ñun sant yàlla lañ koy def yelante ñu xam ko ba lépp li nga xam ne moo ci tolluwaayam ñu man ko ko jox bam doy sëkk su boobaa kilifa yi nga xam ne ay taalibeem lañ te ñu mat sëkk ci ndukkumaan xam ne ñii suñu njaboon lañ lu nga xam ne ñun mënuñu ko ñoom ñu wuutuñu ci di jël xale yi teg leen ci diinal islaam teg leen ci njub ak jaamu yàlla yaakaar naa ne taalibeem yooyu te ñu ràññ ci ku nga xam ne kii nii moom lay seet si muy alaaj Saloum Ndaw ñu ràññee ci ku nga xam ne kii ku mel ni Cheikh Ibrahima Ba bu Ngodiba mun ci ràññee sëñ Dame Ka mun ci ràññee Ewel Baye yaakaar naa ne ñii ay kennu lañ ci ndukkumaan yu nga xam ne waa islam bi dañ leen di faaroo waa Kër baay ñas dañ leen di faaroo ñu wuutuñu ci njaboot gi di ci def lu nga xam ne ñun mënaluñ ñu ko suñ bopp kon tey bii bés bés bu màgg la bés bu am solo la ñëw naa ànd ak samay kilifa sous préfet ñi nii ci biir ànd ak adjoint ñoom ñëpp ñu ñëw pour teertu ñu le gan gu nga xam ne gii c'est le gouverneur moo ñu ko njëkk sant parce que xalif général la jógee fam ñëw ñëw daanu si ci suñu commune yaakaar naa ne kooku duñ def lu dul tàll loxo ñaan yàlla suñu borom moom mi ñu jagle leen googu xéwal mu wisaare ko be jàmm jiñ bëgg ci Sénégal ñu am ko fi gën gaa rafeti ni amin lii ñuy séentu di ci séentu ay jafe-jafe yalla gëna mëna séral yalla sédd ni safara wa nga xamné mom lay sanni won suñu mam ibrahim seen tuwon nañ ci tang mu mujj sédd bardana la ibrahim lañ wax donc loolu lañuy ñaan ci xew xew yi nga xamné ñu ko dëgmal way yakana ni khalifa bu ñëwé dinañ ko talal suñu loxo ñaan ko mu ñaan jamm am ci sénégal mu ñaanal sénégal ñaanal région kafrik ñaanal département kafrin waye berndel ci nak commune katchob inshallah ndax bëgg bëgg yaatu na yaaka di reyna te ñun lañ ko sas suñ néewee doole ci ab yen dañ naan kaay leen jàppale ñu ñu yenu yen bi incha allah bi loolu lañ fas am ay autorité yu nga xam ne saa yu manifestation activité jógee dinañ natt doole activité boobu ba nga xam ne lépp lu ci war dinañ la ko jox su ma la wonoon lettre circulaire bi nga xam ne monsieur le gouverneur boo ko bind bàyyiwul la santé sas leen ñu assurer la couverture sanitaire bàyyiwul la gendarmerie sas leen ñu assurer la couverture sécuritaire la toppee waa hydraulique pour ñu doy noonu la toppee waa police noonu la toppee waa service d'hygiène amul benn service bu nga xam ne bii yaa ngi yeewoo tey wala nga nekk ci région bi te gouverneur santu la nga ñëw te le gan bi te lépp la nga xam ne moo war té ñu bankas bobu ñu sérélé la ko sant na la ca nga ñew def ca li nga xamné bi mo ci war tay ma ngi ni sous-préfet xolal déplacer na and ak son adjoint ñew ñi ngi ni taxaw yakam tu lul gan gi ñew be gendarmerie jitu maire top ji bu sobé yalla sous-préfet mo ci top gën gi top ci ñu gëna di leen sant yeen ñi nga xamné yeen la presse aussi bien parler qu'écrit nga xam ne da ngeen di liggéey di wan waa tund wi waa réew mi li nga xam ne moom la ñuy def xew-xew yi ngeen di leen ko wax di leen ko wax waxin ba gën a rafet duñ mën lu dul sant leen gërëm leen te di ñaan yàlla ñi xamee rajo yal nañ dem ba am ay télévision ñi am ay télévision yal na yaatu ba daj monde bi yëpp